Mm-hmm. am na ñoo xam ne. Mm-hmm. seen transhumance wut daraja. Mm-hmm. wut post wala bëgg a mucc. ci lañ defoon démb moo leen ci dugal. waaye am na ñoo xam ne ñu nga toog fañ toog. tey waroon nañ mën a jëriñu. seen njëriñ. ci réew mi parce que ñii nekk fi di ndaw. Euh, suscité nañ espoir maanaam yaakaar ju bëri juddu na ngir ñoom. rawatina ci jóge ci ndaw ñi. ñooñu nag pour ñu doxal ba am ndam. parce que amuñu expérience yore état. dëgg la dañuy soxla ay. dañuy soxla ku leen di teetee mhm. euh, fii laa koy waxee parce que dem naa ba koy bind Facebook ma ne non su ma ko bindee ñu ne kii dafa bëgg tox su ma génnee fu ma génn liñ may wax bii dem ba ci mujj Babacar euh, ñii mënoo leen jàppale. Mhm. mënoo jàppale xale yi. ndax yow sa xam-xam Sonko soxla noo ko doo jàppale Sonko. Uh-huh. ma ne ko dañu bokkul gis-gis. Mm. mais li ma ci doon ragal li ci ëpp mooy. tey mhm. ñoom même président Diomaye Faye bu ne woon Babacar Gueye j'ai besoin de lui ci biir secteur. wala mhm. dama ko woon jàppale sax mooy conseil kenn du ko yëg. Mhm. bu ko nit ñi yëgee li ñu njëkk a wax mooy transhumé na. Macky Sall ñaari at yi mujj ma koy jàppale. tudde nañ ma transhumant teel la xam ne ne man wutuma poste ci Macky Sall dew ma ci Macky Sall bokk ma APR <laughs> sequma ak Macky Sall ay pal. pour mu leer si bopp Sénégalais mais lépp yéen ko yàq politiciens yi ñoo yàq baat yi ñoom ñoo dem ba même sax ku nekk doomu diw amul sañ-sañu laaj réew mi mbaa liggéeyal réew mi euh, gis nañ ni fi def Karim Wade c'est parce que doomu doomu Abdoulaye Wade la rek nangam euh, Macky Sall ci boppam Aliou Sall ku ne xam nga njàmbaaram xam-xamam jaar-jaaram mais Aliou Sall gis nga ni ñu ko diaboliser te noonu la ñuy def ñeneen ñi et est-ce que mënu leen a gën a wax dëgg yàlla yéegal niveau débat bi au lieu de cette personnalisation à outrance nag yow waaye kàdduy politiciens yooyu ak jëfini politiciens yooyu. Mhm. journalistes yi ñoo koy siiwal. Mhm. média mhm. fi mu toll tey. bu fekkoon ne Assane eh, journalistes yi danoo mel ni yow di tëddee njaaxaanaay wala yeneen journalistes yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ñëpp xam seen ràññee leen ci tëddee njaaxaanaay. am na yoo xam ne ñoom duñ ci dugg am na yoo xam ne duñ ko promouvoir. waaye réew mi dafa tasaaroo. ku mm. jóg nekk journaliste métier bi gën a yomb nekk tey mooy foog nga nekk mm. journaliste. <laughs> ba pare nag mu am eh, effet wu médias sociaux yi ak effet li ñuy wax site yi. Mm-hmm. ak effet télévision yoo xam ne benn mm-hmm. euh, caméra ngay yore. yore ah benn téléphone. Mm-hmm. di def euh, live ñu ñëpp di la déglu ngay wut ay vues nit nekk Amérique. di la fay xaalis boo xam ne bu takku parce que yaa ngi wax ay njombe. ñi nga xam ne wax njombe moo leen intéressé ñu lay seetaan ñu la ciy fay ñooñu mënuñu faciliter suñu démocratie c'est vrai bu fekkoon ne am nañ une opinion publique mhm. boo xam ne dafa mûr mais opinion publique bu mûr nag ñaare koy di former média homme politique ak média mhm. école de parti former militant yi waaye itam média yi ñu xam ne <coughs> du ko rek ñu jox sa micro du ko jog rek ñu jox la sa caméra nga fës. Mhm, mhm. du ko mën a créer buzz rek ñu topp la. du journaliste fu mu jogee rek ñu ne kii journaliste la fekk jàngul sax métier journaliste. la loolu moo indi. situation bi ñu nekk. mais mhm. dara weesoogul de. dara weesul surtout pour contrôler tout ça maintenant de façon démocratique aussi ko bien sûr ko def rek ci sa sa sa naf su bopp wala man parti au pouvoir la ni ma arrangé non da nga koy def pour l' général. pour le futur et voilà tey li ñu yaakaar ci ñi xam ne ñoo jot nguur gi. li ñu woote woon. buñ ci saxoon. Mm. nit ñi mën nañ am yaakaar te mën nañ leen muñal. Mm. ndax dañ naan ñu ngi jéem te am nañ yéene bu baax mais ñu ngi jéem. Mm-hmm. waaye li ñu gis fan yii li ñu gis ci mm-hmm. ndax wote. Mm-hmm. li ñu gis ngir am ay baat assemblée nationale. Uh-huh. li ñu gis ngir conserver pouvoir. dalul sama xel dalagul sa xel uh-huh. parce que dañuy favoriser li nga xam ne ñu baree bari moom lañ doon ngàññi te jël na dimension boo xam ne fi ñu toll gor amatul ci réew mi. Uh-huh. kuy politique sax ñu ngi lay jàppee ne. munoo goree. Mhm. or nag politique ànd na ak ngor. Mhm. politique ànd na ak njub. politique ànd na ak jomb def yenn yi. Mhm. dañuy faral di wax naan ci sama yaay laa ko daan déggee euh, mu naan ma jomb ko maanaam situation bu amee ba ma xaw a tàng. mu yëg ne sama mer yegg na fenn foo xam ne mun naa def loo xam ne bu ëllëgee mën nañ ma ko yeddee. même bu ma amee dëgg daf naan ma daf may woo ba mu ñëw mu ne ma jomb ko gay. tagg ma nag ndax ngir moom sama sama sama jaam la mhm. mais liñ ma daan wax ndax sama tàng sama bëgg dëgg ñu ne ma Babacar yow da ngay politique mhm. te yow da ngaa dëggu ba mu ëpp yow nit bu ñëwee sax wax la loo xam ne mënoo ko da nga koy wax ne mënoo ko lu mhm. noonu dangay naxaate ba jàll dafa mel ni naxaate ba jàll boobu moo nekk tey viatigu om politique yi nax nit ñi ba jàll loolu tam li ko indi am nañ ci responsabilité mooy population bi ndax politiciens yi dañ daan nax population yi chaque fois ñu wax leen lu ñu dul def mhm. population yi dem ba mu yàgg ñu ne comme ñii bu ñu faloo dañuy nax ñun tam nañ leen nax balaa ñuy falu mu dem ba nekk cycle boo xam ne mhm. comme population yi xam ne ni ñii dañu xam ne dañ leen di nax ñu lay commencé nax ah. ñoom it ñu inventé nax bu gën a foor pour nax population yi pour téye li ñu yor loolu moo désacraliser l'action politique mhm. pour man c'est tellement noble malheureusement pal bëgg pal bëgg xaalis bëgg daraja moo indi tey homme politique yi am rapport yi ñu am ak euh, ñi nga xam ne ñooy citoyens yi. malheureusement président Gaye du ëllëg la yëpp yi di changé parce que su ma jëlee yéen ci seen wàll gis nañu lëngoo Karim Wade président Sall euh, coalition boo xamante ni kenn xalaatu ko woon ay at ci ginnaaw finalement euh, dafay yóbbu Sénégalais bi ci bu xalaat ne daal aji politique bi moom nu ko neex mel. xam nga lu tax kenn xalaatu ko woon at ci gannaaw parce que bàyyiwuñu xel ne politique. Mhm. ay valeur la. ji nga bu ñu jàppee ni politique ay valeur la. war nañ mën a nangu képp koo xam ne da nga keppaaroo ak président ab lay Wade. Uh-huh. nga mën a toog ak sa morom. man ngeen a xuloo. mën mm-hmm. ngeen am ay divergence mais valeurs yi taxoon ngeen ànd démb. bu fekkee dëgg la ci yéen. Mm-hmm. gisuma lu tere ngeen war a mën a ànd. loolu moo indi peut-être ànd bi nga gis. Mm-hmm. te boo ko seetee du jógewul ci Macky Sall. jógewul ci Karim Wade. ay doomi lay Wade. ñoo toog waxtaan seen waxtaan seen biir. xam ne luy jot jot na. ñu tuddee leen le bloc des libéraux et des démocrates parti yi nga xam ne tey moo xam Oumar Sarr la bu PLD. Mm-hmm. Modou Diagne Fada. Eh, UCS Baldé. Mm-hmm. Samuel Sarr man mii ak sama mouvement ak ñoom Oumar Sarr euh, euh, Mbacké ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. keppaar ñi nekkoon ci keppaaru. Ablaye ñoo toog créé bloc ne ñun nag. Mhm. jot nañu dellu suñ kër bàyyi. Mhm. pas dans le sens dem dellu PDS. Mhm. mais ñu fexe ñu dajaloo. wax waa PDS ñu rasu. dans un premier temps. ñu wax ak Macky Sall mu nangu. loolu moo créer en réalité le bloc des libéraux de des démocrates. loolu moo indi cette coalition bi ngay gis nii bi ñu ba ci biir nag bi waa PDS gisee ne. jot na ñoom it ñu dellu ci seen kër bàyyi. wala ñu fexe ba ànd ak ñi àndoon ak seen bàyyi. ñooñu loolu moo indi coalition boobu kon foofu damay. def est que du juboo ñàkk pexe parce que jamono yi ngeen ko defee la jamono yi tumuranke maanaam tas nañ seen nguur tas seen kii ngeen ku ne jaar fële. le jaaxle jot ngeen ne ah d'abord bi ñuy sos PLD. Mhm. kenn demagul wote élection présidentielle. Ah. booba li ñu bëggoon mooy libéraux yi ak démocrates yi ànd dem ci wote yi. Ah. dañ ñëwoon jamono boobu bëgg nañ ku bëgg a nekk candidat moo xam Idriss Seck la moo xam Macky Sall la moo xam Karim Wade la kenn ku ci nekk ci ñoom mun na nekk candidat. Uh-huh. mais li nu gënaloon mooy bu ñu demoon tey ba yegg deuxième tour. benn kenn ku ci nekk ci ñun na supporté ko du libéral bu mu supporté keneen ko du mooy benn ñaareel bi dafa am loo xam ne aussi war nañ ko retenir ci euh, maanaam diggante boobu ak euh, li ko sos. Uh-huh. ndax ñun danoo gis ne euh, élection présidentielle. te ay la yéwén yàlla moo tax may wax li gënoon a indi jafe-jafe ci élection bi. Uh-huh. mooy le fait que Karim Wade candidature am jàllul. ñun ñu ngi doon jamono boobu. combat bi nga xam ne moo gënoon rëy ci suñ combat. Uh-huh. mooy fexe ba Karim Wade nekk candidat. xam nga Karim Wade moom xam na ay doomi baayam li nu def pour mu nekk candidat. Uh-huh. yàlla dogal ak le conseil constitutionnel ñu rejeté candidature am. coow li nga fi dégg yëpp boo ko gisee nekkul diggante Karim Wade ak ay doomi baayam dafa mel ni coow li dañ ko jël jëmee ko ci keneen ku bokkul ci ñun. te mm-hmm. loolu feeñ na ne kooku bokkuloon ci ñun. la mm-hmm. preuve. Mm-hmm. élection législative yi socialiste yi la àndal. pour dem wote ji. ak ñi nga xam ne ñooy communiste yi donc lel gauche. moom la ñu ànd ñoom la àndal or ñun li ñu bëggoon mooy ñun ñi nga xam ñooy centristes yi ñu dajaloo. Hmm. kon jàppal ne li xew ci élection législative yi. toggoon hmm. nañ ko ci élection présidentielle yi dafa matul. Hmm. jotul sotti mais bu jotoon sotti. Karim Wade li ñu bëggoon ñun mooy mu nekk candidat. éventuellement bu ñemee deuxième tour ñu organiser wu pour encore que les libéraux gardent le pouvoir. Ah. malheureusement euh, affaire am sottiwul. mu siisu. comme candidat bi comme kandida bi bokkul ci libéraux yi. pour ñoom. ñoom ñu dem ànd ak Sonko pour sanctionner euh, Amadou Ba. loolu aussi c'est une réalité qu'il faut qu'il faut analyser. mais loolu mooy incongruité bi ma wax bu ne ci biir. bu ma parler valeur de principe. mais finalement non c'est pas une question de valeur ah, mooy quand valeur xam nga politique. parce que ànd màkkale naa dem jàppale Pastef goo xam ne yow ana man ana yow parce que PDS ba muy sampu euh, bañ koy sanc mais ñi ñi ñu ngi raam. waaye mais loolu dama ci bindoon Alioune Assane lettre ouverte bi ma defoon Karim Wade nit ñi naan ma du la dégg. Mhm. booba maa ngi koy wax ne ko yaa ngi wàcc sa ànd. Mhm. parce que bokku leen ay valeurs yu ngeen di défendre. Ah war leen ànd. Ah tey man les gens me disent pourquoi mënoo ànd ak ñii. Mhm. ils parlent même de haine déedéet. dañu bokkul ay valeur man du ma extrémiste. benn ñaareel ba valeur nationalisme yi développé man gëw ma loolu. man je ne suis pas du ma def xénophobie. gëw ma populisme. man dama gëm réfléchir. d' abord au plan des idées. réfléchir ci liberté réfléchir ci solidarité réfléchir ci démocratie ensuite ñu sauver la république mais man gëwuma utilisation de la violence mhm. pour dem au pouvoir bu nit mën a ànd ak kuy def loolu mhm. man ak yow bokkuñu valeur très bien voilà seen leader jamono yi muy Macky Sall di Karim Wade ñoom ci ay vocal rek lañ koy jàppe <laughs> noonu ngeen di campagne kële ca Qatar ka des moom ca Maroc ñuy vocal rek waaw xam nga loolu li ko indi mooy campagne ak élection législative dañ ko dañ ko dafa dafa dañ ko dëpp dañ ko dafa c'est biaisé mm. parce que lu ñuy fal te député ñuy fal député ñu koy fal kenn nit la mm. lu ci yoonu ñu naan diw mooy leader ba mm-hmm. tant que ñu ngi fal député mm-hmm. ci ay liste nationale tant que ñu ngi bàyyi ay nit ñu def campagne di wër réew mi fekk yow benn circonscription rek lañ lay falal mm-hmm. ci avatar yii la ñuy am dangay am leader. du mën a bokk parce que dafa nekk Qatar. Mhm. wala nga am leader du mën a bokk parce que dafa nekk Maroc. Mhm. te moo nekkoon ancien président. te buggul lu benn président defagul. Mhm. mu njëkk ko def. Macky Sall en réalité contrainte yi mu am xam nga yaa ngi dégg naan day WhatsApp. mais Macky Sall lu tax deful vidéo. lu tax waxul directement au Sénégalais. à partir de Marrakech. lu tax respecter. ki nga xam ne moo ko dalal muy roi du Maroc ceeg Marrakech. bu doon sagoom kon kay du def activité politique. non moo tax. loo ci ça peut gêner le Maroc quand bu buñ ko waxee buñ ko waxul. non moo tax li ko indi dugal ci liste yi. Uh-huh. boo liiree lettre bi mu bind. war ngaa comprendre ne Sénégal gi mu bàyyi mu jàpp ne Sénégalu jàmm la fi bàyyi parce que ñu bari ñu ngi koy ŋàññi ci lu tax mu def amnistie. li mu hmm. doon bañ moo doon réew mi tàkk bu fi jógee. lim bëggoon mooy li am. Mhm. gëj ngaa dégg coowal manifestation buy toj ak lakk. Mhm. Mhm. ndax ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi tey bu fekkoon ne yoruñ nguur gi dañuy wéy yéen ñii nga xam ne yeneen RFM ak yeneen rajo yi. da ngeen di barricade wu def grille. dem naa ci benn télévision mu ñëw ñëw rek <laughs> fiñ ko def <laughs> ma ñëw gis ñu barricade ay grille ma ne waa lan la d'abord dañ dama réer mënu mun gis télé bi man lu tax amu leen enseigne ñu ne ma fii ku fi ñemee def ANACIM. ne ko gris yi nag mu ne ma pour bañ ko ku ñu attaqué donc. président Macky Sall. Mm-hmm. situation bi mu bàyyi jàpp na ne muy commencé détérioré wu. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom la àndal di ay alliéem. jàppoon na ne bëggoon nañ mu ñëw jàppale leen ñoom ñu war a mën a gagné. Mm-hmm. troisièmement ëllëguur Sénégal ku ne war na cee xalaat. ndax sept mois yi quand même ñu dund. Euh, ku gisoon Sénégal fa mu tolloon ak ni nga xam ne suñ not. économique nu muy dégradé woo. Mm-hmm. notre souveraineté. ak suñu situation diplomatique nu muy dégradé woo. Mm-hmm. contrat yi nga xam ne Sénégal si signé na ko heureusement. biñ demee ba gis la réalité rawatina la affaire ji ko. Euh, euh, bu euh, saoudien yi. Mm-hmm. dem nañ barki démb Arabie Saoudite tuub ba réconcilier. maanaam entreprise boobu ak Sénégal. non tout bu ñu koy Arabie Saoudite da bëgg a des ba tey ci mbir mi. ñu ne ko kon day il faut que ñu rectifier ko. amul ah, rectifier au contraire ils ont ce mérite là quand même. de revoir déedéet loolu langage diplomatique la. Ah, ah. dinañ ci ñëw ci kanam euh, président Babacar Gueye <laughs> la ñu àndal seen émission yoon weeg RFM euh, ab maître Abdoulaye Wade ñu koy ziar wax dëgg yàlla di ko ñaanal wér ak gudd fan euh, ndax liggéey bi mu liggéeyal Sénégal vraiment waxuma sax en tant que président mais nit ñi dañuy gaaw fàtte. démocratie Sénégal bu egsi fii tey Abdoulaye Wade li mu ci liggéey ah, kenn gënu ko cee jàmbaar waaw tey la mbir yomb nag ba xay na yeneen jàmbaar judd mais Abdoulaye Wade moom gàcce ngaalaama moom. maintenant la question est de savoir ndax moom moo bénir coalition bi ndax yëg na yégul est-ce que du Karim ay wax à sa place. président lay Wade mag la ñaanal ko wér ak fan wu gudd comme ni nga ko waxee. Mhm. ndax Sénégal ci démocratie fi mu yegg. mooma ak ñi ak compagnon ñi nga xam ne ñii fekkee wuñ. ñii fekkee nañ. Mhm. waaye ñi nga xam ne ñoo fekkee ñaar fukki at ak ñeent yi weesu lépp lu Ablaye doon xalaat. Mhm. ngir jàmmi Sénégal ngir progrès Sénégal doomam yi ñoo ci nekk. lu fi am ci réew mi rek jàppal ne 24 ans yi bokk na ci lu ci ëpp. c'est vrai que Senghor Abdou Diouf. Mhm. def nañ fi lu bëree bëri ay fondamentaux. Ablaye ñëw nag yéegal économie bi ak démocratie fu mu mosul yegg. ku mel noonu bu amee ay doom. soxlawul mu naan man euh, li ngeen di def neex na ma muy fës. Mhm. mais yow leer na la leer ne ñun ñi nga xam ne ñoo meññee ci keppaaram. Mhm. nangu ne danoo war a ànd kenn ku nekk fàtte sa bopp. par force da koy neex te da koo neex li tax du mun a da koo neex bu ko neexuloon du am. Mhm. la preuve élection présidentielle yi. gaa ñi bi ñu nee ba jaaxal ba xam ne président Abdoulaye Wade rek mooy solution. danoo dem ba këram. pour bénir mu bénir. Mhm. li nga xam ne moom la Karim Wade séq ak euh, Diomaye Faye mais Ablaye Wade dafa am yeneen repère yoo xam ne ñu ngi fii te du ngeen ko gis yéen mhm. bu leen fàtte ne président Macky Sall dafa xoon sëñ Mountakha Bassirou engagement la jëloon ne dootul def lu métti président Ablaye Wade mhm. te bu doon sagoom lépp lu Ablaye Wade bëgg mu ngi ca lépp lu njabootu Ablaye Wade nekk ca loolu la nekk serment boobu moo continuer ba autorités yi war a bénir ñun li ñu def mooy sëñ Mountakha Bassirou te mm-hmm. barki démb bi fa gaañee demee lam leen wax dégg nañu ko. Mm-hmm. amul lu ko gën neex mu gis ne waa kër Macky Sall ak waa ak waa kër Karim Wade dañoo ànd. parce que jàpp na ne ay doomam lañu ngir taalibe mu magam boobu di magim taalibe lu koy wooyee mm-hmm. président Abdoulaye donc Abdoulaye moom. Uh-huh. ànd na ci lu ñu def. parce que kenn ci ñun. waxuma ñi mujj ñëw de mais les authentiques compagnons du président Abdoulaye. duñu mës a wax Ablaye lu ko ñaqari duñ ko mës a sàll ñu mm. te duñ mës a def loo xam ne bu fa mu toog dina am lu ko métti li mu mm. bëgg mooy njabootam gi bu doon sagoom wax na ko ñu toog fi ba cinquante ans mm. yàlla am na ci benn rupture bu ci am mooy élection deux mille vingt quatre yi ñeneen ñëw nañu ñoo xam ne bokkuñu ci njabootu président Ablaye mm-hmm. mais rien n'est trop tard même après ces législatives li gën mm-hmm. mooy njabootam googu xam ne am nañ héritage bu ñu war a sauvegarder mm-hmm. pour le repos éternel du président Wade comme ni ñuy tuddee De Gaulle. Mhm. ñu naan les libéraux. ñu xam ne à chaque fois que bu ñu ko waxee on fait mhm. référence à cet de grande dimension. Mhm. nationale et ah, internationale. on verra bien ndax du du alliance d' intérêt rek parce que pour mu sax il faut que intérêt yi dandu euh, l' avenir nous dira. fi ñu toll jàpp naa ne euh, ñi nga xam ne ñoo seq mbir mi. ñu ci bëri ay mag lañu man bokk naa ci tey ak ñoom Abdou Fall ak ñooñu ay mag la ñun xëccootuñu. te du seetaan nag. ñi nga xam ne ñoo am jamono. di yàq li nga xam ne ñun ñoo ko bokk. te loolu <coughs> intérêt bi mooy Sénégal nit buy def politique. Mhm. am jaar-jaar dangay toll foo xam ne sagesse da lay recommander ngay def lu baax. ne ci lu baax. Mhm. di wax lu baax. comme am na ñu fi taxaw ñoo xam ne ñoom bëgguñu falu. ñi bëgg a falu di ay ndaw dinañ leen encadrer ba. Mhm. intérêt yooyu ku nekk am na droit am ambition. waaye mën nañ ko conjuguer tey la xew Europe. muy France je cet exemple. Uh-huh. ñi bokk par exemple dans la parmi la droite wala ñi bokk chez les socialistes. Uh-huh. mais bu ñu demee ba xëccoo jot kenn ku nekk danaa damaa bëgg. on peut un arbitrage. mais ñu def arbitrage. de démocratique. loolu mën nañ ko ñun. waaw. buñ ko amoon sax xëy na président bi fi ne tey du du sentir redevable de qui que ce soit. voilà au niveau des partis mu am ay primaires. benn mooy démocratie d'abord interne mais waruñu tuñ am ay Ablaye Wade. Uh-huh. et je li ma constaté mooy dafa mel ni beneen Ablaye Wade ngi juddu. Uh-huh. oui mais mm-hmm. Ablaye Wade maanaam le fait que mu amoon hégémonisme ci biir parti démocratique sénégalais. ak mm-hmm. ci nit ñi ñu jàppee ko kilifa. mag la d' abord. Mm-hmm. ensuite dafa nekkoon pionnier. ensuite fekkoon système boo xam dañ ko waroon changer pour moom. mu wane wu comme Messi bu ma ñëwee solution est ce bi mu ñëwee solution yëpp am nañ am nañu awul. tey gis nañ Ousmane Sonko mu présenté wu dimension boobu. mais pas dans le sens que moi je souhaiterais pas dans le sens d'une dictature. pas dans le sens d'une confrontation avec l'opposition démocratie dafa soxla une opposition forte. Mm-hmm. or Ousmane Sonko dafa amoon valeur yu mu doon développé yu bari ku ci nekk bi ci mujj muy déclaration am. Mm-hmm. le 24 mars bi mu jëlee réew li mu wax. ku nekkaloon ci ñun ba le 24 mars fa nga nekkoon toog fa. ñun ñu doxal. Mm-hmm. waaye tey mooy encourager mooy recevoir mooy fexe ba ñi nga xam ne tey ñoo àndoon ak Macky Sall. Mm-hmm. ak ñi ko contrôle ak ñi nga xam ne dañ ko doon ñi yàq ko lu ne. xamee gu ne sànni nañ ko ci kawam. Mm-hmm. ñooñu tey ñoo nekk ci keppaaram ba mu leen di fal xam nga loolu ça pose un problème d'éthique. moo tax ñuy am tiit ne. élection législative yi bu fekkee ne dañoo jox majorité Pastef. jox nañ dugal nañ Sénégal ci autocratie maanaam kenn nit mooy dogal ndax boo ko seetee fi ñu toll. Ousmane Sonko amagul majorité Diomaye mooy président waaye ñëpp ne nañ Diomaye mooy Sonko. Sonko mooy Diomaye Sonko li muy def. li mu bëgg la so Diomaye di def bu fekkee Diomaye ngay def bu ñu demee nag ba Sonko am majorité assemblée nationale téye Diomaye téye assemblée. Mhm. ba pare di annoncer ne justice bi li mu bëgg la ñuy def. Mhm. parce que quand quelqu'un dit su ngeen waxatee fii mooy dugal leen ci kaso bi ngeen dee fa wala bu bu ngeen paree. démb rek farba farba ngoom. Mhm. wote bii mooy nekk sa mujj wote comme moom mooy yàlla mooy buur mooy atte mooy tëj mooy tijji. je pense que nous sommes en danger. en tout cas parlant de démo de de ci kaw ngeen nangu ko c'est-à-dire aussi la politique c'est un rapport de force. mais bien euh, sûr kuy lekk. bien sûr nguur da ngay foqale c'est à vous ngeen téye loxoom. mais bien sûr bu parce que nag moom it euh, vraiment à sa décharge dafa xeex. opposé wu wane ak jàmbaar ba yegg si fii tey. léegi nag bu opposition bi yàccaaralee ba ñu leen di tëj benn par benn ngeen di seetaan bu boobaa seen affaire la. waaw déet déet Assane. déet foofu d'accord ma yow ci waxin quoi. déet xam naa ci waxin nga ci waxin damay damay bañ ci déggin. damay la nature a horreur du vide. d'accord il faut que l'opposition se batte. contre cette éventualité d'installation de dictature. dans ce dans ce pays. ànd nañ ci yow mag loolu. mais xeexu euh, salon rek. ah yaa ngi bëgg a ñëw. <laughs> sari xeex toj. xeexul lakk xeexul rëy. waxuma toj waxuma bay ba non résistance ba ci démocratie la loolu la def de. <laughs> loolu la def ba yegg fi mu yegg. xeex. moom moo ko xool boppam. Hmm. déjà il disait que opposition bi mënuñu opposé wu. parce que jàpp na ne opposé wu mooy lakk. mooy manifester dans la rue mooy casser les biens publics mooy organiser les demander aux aux jeunes d'affronter les euh, forces de l'ordre ba nga xam ne dañ ay dee da ciy am. Mm-hmm. ñun ñi nga xam ne tey réew mi dañ koo tabax duñ def loolu. Mm-hmm. bu fekkee ne foofu la ñu Sénégal yi xaar duñ fa ñëw. Mm-hmm. ñun li ñu bëgg mooy wax ak sénégalais yi ci xel ñuy dégg maanaam une opposition boo xam day day créer ay valeurs ay idées di ko partager. Uh-huh. médias yi jàpp ci. li nga xam ne mënul am. ñi nga xam ne seen baat jot na ñu dénoncé ko. Mhm. ñu artu leen. justice bi aussi jël see responsabilités. Mhm. parce que waxoon nañ ne après euh, li nga xam ne moom la conseil constitutionnel def ak euh, président Macky Sall. Mhm. neewoon nañ ah ñun de dégg am nañ justice ndeke. waaye bi nga xam ne fan lañ ministre de la justice Ousmane Sonko dem Grand Théâtre naan ministre de la justice daf ma yónnee vidéo ne kii di sa militant la naka laay def dama koy jàppal dama koy bàyyi. Uh-huh. sama xel commencé tey. mais bu ñu amee justice bi ñuy yaakaar mais euh, xam nga dara wóor la ne ministre ba ko wax it te ministre bi taxaw di ko weddi. kon kon ça veut dire quoi ça veut dire que kon ça veut dire que Ousmane Sonko dafa fabriqué loolu. non je man de bu man point ne su ma nekkee. autant dégg nga Ousmane Sonko wax autant ndax la mu wax ministre baa ko wax donc c'est une question. déet man man du ma bokk ci gouvernement. Mhm. premier ministre wax loo xam ne du samay jëf wala du mm-hmm. samay wax. Mm-hmm. ma koy seetaan wala ma fay fanaan benn minute. lu yàlla lu yàlla discipline. bokk ci. entre entre informer un premier ministre. entre guillemets ko du benn. dama ne amul à titre d'info on n'a pas l'informé le le le amul lu mu koy informé. ci ministre du gouvernement tu n'informes pas ton premier ministre. déedéet boo une décision aussi importante. c'est pas important c'est pas un cas signalé. c'est ah. pas c'est pas le khalife des mourides qui a des problèmes. ce pas sëñ Bass Abdou Khadre qui a des c'est pas Sëñ Babacar Sy qui a des problèmes ce n'est pas Youssou Ndour qui a problème mhm. c'est un délinquant ok c'est pas bu koo xam ne mhm. euh, maanaam ministre de la justice bu ci agir dina créer trouble social quand trouble social mooy mhm. déranger nit ñi ci doxalin mooy bi ñu fi convoqué euh, maanaam ku mel ni euh, goro Macky Sall loolu c'est un cas à ah président ah, la goro Macky Sall dañ ko tudd ci benn affaire on fait quoi loolu pour mu bañ am trouble social quand trouble social du rek ay manifestation mhm. que xelu nit ñi am leen métti tey dara bu xewoon Touba concerné njabootu sëñ Muntaxa Basiru mhm. c'est normal que ministre de la justice woo président ne ko lii de dafa concerné diw te diw mi moo sës ci xalif bi nu ñuy def. Mhm. loolu cas signalé la. mais un va-nu-pieds quelqu'un permis de casser de tuer de d'insulter le président de la république. kooku dafa jar ñu koy ñu koy laajal lu ñu war def dañ ko war a woo dugal ko ci mbaam mi. autrement dit reddition des comptes yi ñuy wax ci mu jaar ci mandute. des comptes moom pas reddition defuñu reddition des comptes dañuy dañuy régler ay comptes. Mhm. la preuve premier ministre moo dem ba fële nga xam ne mooy Matam. Mhm. dem ba ci mujj waxuma yi njëkk yi sax. di menacer Farba Ngom yegg ci ba ne ko dootoo am sax maanaam éligibilité ndax biñ paree élection yi bii mooy mujj nekk sa dernière élection. Ah mais loolu c'est grave. Mm-hmm. à supposer que Farba def na dara. mais Farba Ngom ñoom am nañ la latitude amoon nañ la latitude au moins de poser le débat de poser le problème pour ñu war ko atte nañ ko war atte man loolu dama ci ànd. mais Farba Ngom quand même. Euh, ku ko bëgg a tuuma tooñ yaa ku ko bëgg tuumal yaa ngi koy tooñ. Farba Ngom ab député. Mm-hmm. Farba Ngom homme d'affaires. Farba Ngom di régler ay business am Farba Ngom dé dénkuñ ko alal réew mi bu fekkee dafa ay problème nañu dem jëli ñi nga xam ne ñoom lañ dénkoon alal réew mi. Mhm. ñu def ci ay ay njuumte yàq ci. Mhm. bu ci Farba Ngom taqee ñu boole ca Farba Ngom. Uh-huh. mais Farba Ngom warul nekk élément central. de mon point de vue bañ koy menacer te loolu li ko indi mooy Sonko jàpp na ne. Mhm. justice bi bu ëllëgee. lim leen wax ci Farba Ngom loolu la ñuy def. mais mais il peut se tromper lourdement moom c' est le politicien qui parle rek mais les magistrats quand même le pôle judiciaire bi ñu le ministre ak ñeneen ak ñeneen réew mi ay gor bari na fi. xanaa gisoo buggaan bërki démb xanaa gisoo buggaan bërki démb damay dox waxuma li ci des dama koy fàtte ci gannaaw damay dox dem Bakel ñu ne ko doo dox dem Bakel. Hmm. ce qui est contraire à la loi tu sais pourquoi parce que dafa nekk liberté fondamentale d'aller et de venir waxuma la nga yor cortège mun nañ jàpp buggaan. ne ko ràpp ci kaso bi. taqal ko. chargé ko ca euh, euh, gendarmerie ba. procureur ñëw ci biir tribunal bi di ko chargé. procureur buy wax il parle au nom du ministre de la justice. Mm-hmm. n'est-ce pas mais gendarmerie bi mujjee ci fuñ mujjee. bu taxuloon ak gendarmerie seen témoignage buggaan ci mbam mi lay dee. Mm-hmm. parce que booba ordre peut-être bi nga xam ne jotoon nañ ko. mooy nañ fexe tëj ko trois trois mois de prison ferme. loolu dañ ko war a arrêté. fii yéen rek a mucc. Mm-hmm. pour le moment. Mhm. ñu ngi seen kow nag mooy attaqué seen seen seen liggéeyukaay yi. Mhm. mais journaliste rek lañ fi arrêté tey. Mhm. coow li ne kur ñu bàyyi la. bu loolu loolu ñu faagagal leen parce que bëgguñ kenn ku wax. Ah. Yérim Seck yaa ngi gis barki démb menaces yi concernant heureusement. am na fulla am na fayda. xam ne réew mi réewu démocratie la il faut se battre comme tu le dis mais il faut se battre <coughs> ak fulla ak fayda ci yar. Ah. bañ a tooñ bañ a wax loo xam ne bu ëllëgee mën nañu ci tëj. xam nga xam nga foofu laa doon waxee. sànq ah. nga may wax ay waxi toj yooyu non. ah yaa non non da nga ne fi mu jaar. déedéet xam nga xam nga non non waxuma fi mu jaar moom. Ah, laa wax. kon d'accord nañ maintenant nga am sa façon wu xeexin. d'accord mais xam nga résistance dafa bari façon. d'accord résistance su xeer ak yu ñàkk fayda yooyu tey xew mais résistance su gor. merci résistance su doylu. dëgg la résistance jomba. jomba transhumé bien sûr man xeexu politique boobu laay wax. d'accord nag yow. Ah. on est d'accord sur ce plan là. parce que bu ñëpp defoon noonu un état ba ci suñu kilifa yu baax yi sëriñ yi bu ñu demee ba un politicien se permettre di saaga sëriñ mais bu sëriñ yi manqué woon bale nag li ñu yor parce que la ñu yor mu gën. lii ñu yor ñoom seen matériel àddina yi. absolument waaw wax nañ leen ko di. loolu mooy wax di sëñ Bassirou Abdou Khadre wax na leen lu mel noonu. Mhm. li ñu yor li ñu saytu sëñ Touba defal bu fekkee murid yi la. Mhm. ëpp na li ngeen yor. mais yemul foofu ñun duñ xaar sëriñ si ñu réglé ko. ji nga takk wàllu Sénégal bu ñu gagné élection yi bu fekkee ne am nañ possibilité quelle que soit par ailleurs la majorité bu ñu am assemblée nationale. Mhm. dañuy proposer une loi pour un statut de ces chefs religieux. Mhm. moo xam chrétien nga moo xam musulman nga. Mhm. protéger davantage no croyances. de telle sorte que ku dal seen kow yoon dal sa kaw. loolu mun nañ ko def te nañ ko def dañu proposer une loi pour protéger les marabouts. pour protéger les chefs religieux pour protéger ce que nous avons de valeur. au plan culturel. chefs coutumiers yi dañ leen di protéger parce que ñun. dañoo sàgganee lu ñu moom France def nañu révolution 1789 mhm. mais seen buur ya dañ leen jox cër ba tey mhm. Angleterre tey démocratie moo fay dox premier ministre moo koy doxal mais reen ba dañ ko jox cër Danemark yeneen réew ñuy sin singer ci république ñoom ñëpp mhm. dañu am ay valeurs yu ñuy garder ñun ñu am ñaari façon valeur benn valeur mooy suñu kilifa diine yi ñoo ñu ëppal lu ne ñaareel bi mooy suñuy aada nañ ko sàmm ci boo sàmmul sa aada lu këf dafa yomb ah, moo tax ñun li nu bëgg mooy une majorité à l'Assemblée nationale pour loolu jàll su ah. amul ah. dinañ jël suñ posture wax Sénégal ne lii la ñu bëgg réew mi di doxee mhm. te loolu ñi ñu ci war a dimbale mooy président Diomaye Faye mhm. parce que Assemblée nationale la moom mooy politique la nation moo koy définir mhm. moo tax aussi ñu jàpp ne takk wàllu Sénégal wootewul ay blocage Sénégal takk wàllu Sénégal li mu woote mooy fexe ba bu ñu gañee ñu toog waxtaan. Mhm. def une union. un gouvernement d'union nationale et de réconciliation. loolu mooy premier acte bi ñuy posé mooy convoquer les assises de la réconciliation Sénégal dafa xaaj ñaari baay. Mhm. ku baax ke ku bon ki. Mhm. ñii féetee fii ñii féetee faa. lu ñu bëgg ñu dajaloo bàyyi ñi war a gouverner gouverner. ku ñu fal en tant que président nga garder sa pouvoir. ñi ñu fal en tant que député ñu bàyyi leen ñu garder seen pouvoir. mais ñoom ñaar ñu mën a con conjuguer seen i pouvoir. de telle ci jàmm pour le progrès. très bien su ngeen gagné. bu ñu leen gañee nag Pastef jël majorité bi xanaa nag di ngeen ngeen ko bàyyi mu liggéey. non bàyyi nañ ko mu liggéey di Pastef kenn mës ko gêné doo ko seetlu. Mhm. Pastef gañe na ba ba ñuy wax ne yéen ñii nga xam ne député ngeen vous ne méritez pas que ñu ñëw fi ci la coow commencé mais avant déggoo benn yoon majorité bi wax dara Pastef. Ah. Mhm. kon donc li ñuy wax xal wi taal daay gi waa Pastef ñoo ko dugal ci ci dëkk bi. Mhm. léegi nag comme ñoom ñoo yore nguur gi war nañoo am conscience ne. amuñu intérêt que réew mi di tàkk mm. amuñu intérêt que réew mi nekk en situation d'instabilité mm-hmm. parce que day yàq investissement day tax nit ñi ñu liggéey day tax nit ñi du duñu ñemee euh, kenn du bëgg def dara mais loolu pour mu am c'est facile kenn ku ci nekk li la yàlla li la yoon may mais nga garde ko mais mm. ngeen waxtaan ci ñaari borom doole bu ñuy dajee te li ñu yor mënuñ koo xar kenn ku ne jël sa wàll mm-hmm. dañuy waxtaan ba juboo mooy ñun loolu la ñuy cultiver ñun li ñu bëgg mooy. ñu mhm. waxtaan ba juboo il faut que le président nekk dans ses dispositions. Mhm. moom moo détermine l'appel de la nation. Mhm. si la majorité tombe maintenant entre les mains de Pastef leen rek laa ragal. mooy que tous les pouvoirs nekk entre les mains d'un seul homme muy Ousmane Sonko. loolu mooy li ngay ragal rek mais ñoom ils veulent cette majorité pour daal di concrétiser projet bi ñu dig waa Sénégal. projet moo amagul. mais si bërki de moo njaay nañ la non vision lañ génnee ak référentiel vision Sénégal 2050 vision ne lii lañ bëgg Sénégal refété mais waxaguñ projet mhm. waxaguñ programme mhm. waxaguñ nan la ka lañ koy tëggee waxaguñ quels sont les programmes euh, d' prioritaire lan lañ war a njëkk a def teg ci lii teg ci lii teg ci lii mhm. naka lañ koy defee ban impact lay am fu ñuy jëlee xaalis ba c' est important sa mbébét lu mu rëy rëy te amoo fooy jëlee xaalis boobu nga xam ne dem demarago. si wax nañ wax nañ leen dañu bëgg a wàññi dépendance bi extérieur xaalis bi ci réew mi te ñu war ko ñoŋal ñi daan sàcc lii ñi daan ko dugal fee fu warul pétrole bi gaz bi ñu dajal loolu lépp créer cette. Euh, populisme man financière en interne populisme li koy caractériser mooy. Hmm. dañ naan la li tax biig reeroo <laughs> waa ji moo sàcc xaalis bi. li tax école bi amul bunt. gaañ ñoo jël mille milliards def ko ci benn compte. Mhm. li tax sa amul liggéey. Farba Ngom moo jël xaalis bi di distribuer cinq trente millions cinquante millions loolu mooy populisme. Mhm. léegi li tax ma ne la jafe na pour ñu mobiliser li ñuy wax xaalis euh, ci biir réew mi. ji nga programme PSE bi nga xam ne ñoom moom lañ copier ci seen vision bii. Mhm. dafa prévoir ne euh, dañuy mobiliser mille deux cent milliards pour financer le PSE mais mille deux cent milliards yi. entreprise nationale investisseurs nationaux yi ñi nga xam ne ñooy euh, maanaam homme d'affaires sénégalais yi ñoom ñoo lañ koy jagleel. 44 mm-hmm. milliards la ci lañ ci lañ ci def ci PSE ba mu jeex. ñoom ñu ne seen programme bi quatre mille quatre cent milliards. Mhm. moom la ci entreprise nationale yi war a am comme cër. Mhm. maa ngi xaar ba seet Sénégal. ban yan entreprise fii ci réew mi. Mhm. ñoo mën a fexe participer à de quatre mille quatre cent milliards. Ah. li ci des muy PPP parce que PPP muy partenariat public privé. kooku mën na nekk bitim réew mën a nekk intérieur ak état bi. Ah. kon bu ñu xalaat l'homme d'affaires sénégalais. mu mun a dem wuti partenaire kooku PPP lañ koy boole. Mhm. troisièmement wax nga ko léegi ñoom ku munul am xaalis ci réew mi pour mottali say salaire fii ak décembre. Mhm. fay say étudiant fii ak décembre. ba mu jaral la nga dem lebi cent quatre-vingt-un mhm. bu man ba mu waxee ne ma damaa bëgg dix-huit mille milliards. te li ci ëpp ci sama réew laa koy jëlee. Mhm. man du ma nangu loolu li may gëm mooy. Mhm. dañuy continuer di négocier ak de fonds yi. li mhm. liñ leen digoon muy liñ digoon Macky Sall ak gouvernement muy mille cent cinquante milliards fonds monétaire teg na ci loxoom. waroon nañ leen jox heure bi ma wax ak yow trois cent cinquante milliards nee nañ jotuñ ko génnee ñu ngi xaar ba Cour des comptes génne rapport am. bu boobaa ñu toog ak gouvernement bi discuter. mais li nga xam ne ñëpp jàpp nañ ko te ñoom mënuñ ci dellu gannaaw. mooy que subvention yi Macky Sall doon def sept cent cinquante milliards deux mille vingt deux. Mm. six cent cinquante milliards pour dund bañ a seer essence bañ a yokku. Mm-hmm. nañ ko teggi. Mm-hmm. impôt bi nañ ko yokk pour que xaalis mën a dugg. loolu mooy barre de fonds yi li ñu wax ak gouvernement Sénégal maa ngi xaar mm-hmm. bañ ñu watee ba pare. Ah. bu boobaa Sénégal yi nañ xam ne erreur la. jël benn majorité bi di ko jox ñii. Mm. comme gouvernement buy soog a ñëw nangu loo leen également que dañoo ne ci benn phase transitoire ak passif bu ñu fi fekk euh, gannaaw bu ñu defee état des lieux loolu mënoo leen ko nangul yow tamit. an kay xam nga lu tax dañu waroon humble état l' état est une transition. Mm-hmm. Sénégal fi mu toll tey si situation. bu fekkoon ne Macky Sall wala Amadou Ba moo nekkoon président. Mm-hmm. est-ce que li nga wax ni dina nekk. dañ naan situation bi fi nekkoon ci la Amadou Ba di continuer. Mm-hmm. te ñoom ñu ngi doon doxal ba bu ñuy génn ci nguu gi. Moustapha Ba mi génn àddina mu ngi nii yàlla ko yàlla yërëm fépp fu Sénégal mas a soxlaa xaalis teg na ko ci table ji pour que projet yi ñu financé ko mais lu tax ñoom bi ñu demee rek affaire bi ne kàkk hmm. loolu problème la loolu def ñaar ma mun a am ou ñoom xamuñ ni ñuy organiser ñaar xamuñu fu ñuy wutee xaalis ñett gaañu wóoluñ leen pour dimbali leen hmm. mais ñun ñoo war a mobiliser autour de waaye pour ñu mobiliser autour de ñoom sénégal yi. Mm-hmm. il faut que ñu respecter sénégal yi. commencer par respecter ñi nga xam ne ñoo leen ëpp xam-xam. ñoo leen ëpp jaar-jaar ñoo leen ëpp compétence. Mm-hmm. particularité bi nga xam ne mooy takk wàllu Sénégal mooy ñi ko composé mooy ñi nga xam ne ñoo tabax réew mi de Senghor à Macky Sall. Mm-hmm. de Senghor laax Abdou Diouf du moins de Abdou Diouf. Uh-huh. à Macky Sall ñi fi tabax réew mi ñoom ñoo composé takk wàllu ñooñu am na lu ñu xam. donte am na ci seen biir ñoo xam ne jubuñu. donte am na si ñëw xam ne seen biir kenn waru leen boole te ñu yore réew. humilité bi kon yéen ñaari wàll yëpp la war parce que aussi mënoo fee nekk nag ba ñu yanu la teg ci suuf boo boo daanoo da nga naan nag damaa daanu. daanu nañ. may nag ñi ñi falu. de non non may bi mooy. lenn ab diir. non diiru def lan politique amul. may diir mais juróom benn weer rek. non non kii bugg ko Sonko bugg ko. Hmm. Sonko waxoon na deux mille vingt deux. élection nee na bu fi kenn laaj ay maanaam li ñuy wax état euh, de grâce état de Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il faudrait prendre au mot tous les politiciens Parce que autant Sonko wax na lii autant. Euh, non ci wàll wi laa lay tontu. wàll li nga wax rek laa lay tontu. boo ma ah. laajoon ci beneen politicien boo xam ne dafa mm. bokk sama camp wax ay yu mel noonu. Mm-hmm. ful ak fayda ji ma am. Mm-hmm. ak déggu gi ne ci man noonu laa la koy waxee. Ah. moom moo jàpp ne soxluñu état de grâce. donte may nañ leen état mm-hmm. fii toog nañ fi six mois déggu kenn yëkkati kàddu jëmale ci gouvernement bi. mais comme ñoom ñoo yëkkati xalu safara sànni ko seen i opposant mhm. mais ñooñu yaa ko xool sa bopp il faut que ñu résister loolu mu indi coow li ngay dégg nii <laughs> mais ñoom logiquement mhm. li waroon mooy euh, ku mel ni lu tax ñu garder Cheikh Diba mhm. Cheikh Diba lu tax ñu denc ko denc ci gouvernement te Cheikh Diba pourtant ci keppaaru ki nga xam ne moo fi jógee la nekkoon pendant au moins quinze ans mu ngi ci keppaaru mais c'est ça l'idéal quand wax c'est ça que je suis en train de dire dindi politisation loolu laa niñ ko defee ci Cheikh bi di ba waroon nañ ko mën a def ci ñeneen ñi. Mhm. erreur bi ma leen reproché xam ban la bi ci ëpp. mooy bi ñu ñëwee jël nguur gi. bu ma doon ñoom. Mhm. donte am na ñu àndoon man. te xamaguñ lu ñu yore nguur. Mhm. y compris président bi y compris premier ministre. ak ñi nga xam ne ñoom la ñu nommé ay ministre ki ay DG surtout DG yi. xam ne exécution la. damay bàyyi DG yi nga xam ne kenn xamul lu leen lu ñaaw. mun nañ liggéey. ma bàyyi leen seen poste. jël samay nit ay cadre taftal leen. il y la pression de militants. ce n'est pas facile. ma dama leen di taftal foofu. Uh-huh. pression militant amu fi falu nañu. militant balaa muy am pouvoir. ah si ñoom ku saqat sax ci internet gi ñu ñu ñu déglu la. oui mais loolu du yoon Sénégal yi def nañ réprobation Sénégal yi yëpp d'accord ci loolu. ñoom dañu waroon gëmm. tax lu ci loolu. Mm-hmm. xam ne balaa leen militants yi sanctionné. comme ci kaw Samba Ndiaye par exemple. am na ñu ne président fay doxale na ni mu war a doxale un président qui prend une décret un décret plutôt ñu bëgg ko ñàkkal fayda noonu ci ñaari fan. oui ndax internet gaa ngi riir. déedéet du internet bi. Hmm. premier ministre moo moo moo moo am position. <laughs> bu jéggi dayoo ci président lu mu def. Hmm. cadre yi mu fal ay ñu nekk direction ñoo jël ay position yu jéggi dayoo. Hmm. mais heureusement que cas boobu maanaam jàll. mais dama ne noonu la war a gëmmoon ci bu ah. ñuy jël décision yoo xam ne c'est des ah. décisions impopulaires pour ñoom waratuñ xool seen militants yi dañu war a xool maintenant Sénégal yi l'intérêt général intérêt Sénégal te loolu moo leen di sauver ëllëg bu ñu ko defoon bàyyi boo mm-hmm. yooyu mm-hmm. jël leen ñu nekk en stage entre guillemets mm-hmm. pendant un an le temps que ñee pousse ñoom ñu toog liggéey yoru ay une continuité kenn ko sentir uh-huh. te ñooñu nga xam ne nekkoon ci administration bi duñ ay politiciens marqués ñu bàyyi leen seen poste yooyu l'avantage c'était quoi ñooñu dañuy gën a jub parce que dañuy xam ne amatuñ benn parapluie ka mm, mm-hmm. adversaire moo leen fi bàyyi dinañ ko liggéeyal pour deux choses d'abord dañuy ragal ñaareel ba dañu fay bëgg a toog pour def résultat très bien si je comprends bien ñoom obligation de résultat waroon na tax ñu ñu objectif dans les choix dans le billaay wallaay talaay mm. surtout que dañ ko waxoon ne mm. balaa ñuy tànn nit dañuy def appel à candidature seet ñi gën ci sénégalais yi ñu seen loxo seet ñu jël leen mm-hmm. mais naka nga mën a waxee loolu ba pare di jël ñoo xam ne d'abord mënuñu. mooy mm-hmm. compétence. parce que defuñu appel à candidature. deuxièmement ngay recycler par la politique. pour des questions électorales. Mm-hmm. ay ñoo xam ne yaa leen doon wax ne suuf si ñoo ko jaay. Mm-hmm. yaa leen doon yàq lu ne ci seen comportement par rapport ak ñoo xam dañ leen épinglé IGE dañ leen épinglé Cour des comptes. rapport yi nekk fi tey ñu nekk sa wet nga nanguñu ak ñëw ak yow. ñu ko doon def logiquement li ñu waroon def pour garder les mooy. xale yi Pastef li ñu wax man foofu rek laa ànd ñoom. benn ñoon rek laa mës a ànd ak xale yi Pastef yi mooy ñu récuser mhm. que ñi nga xam ne tey ànduñoon ak ñoom ñëw bëgg buruxlu ci mhm. seen pouvoir mhm. loolu man je suis d'accord avec ñoom mais d'accorduma ak ñoom pour ñuy ŋàññi décision bu président de la république ah. loolu moom c'est désacraliser l'État en tout cas nu yare sunu njaboot yi ci politique maanaam waa takku wala waa PDS wala APR fexe ba xale yi gëb leen euh, Pastef gis nga ne mu yare ay doomam mais loolu baaxul ci Sénégal yaruñ leen dañu war yar nit ñi ci état dañu war yar nit ci patriotisme wax naa la ko ci njëlbeen mais pas ci ay péete waxoon naa ko ci njëlbeen ne la li mooy une cohésion et du civisme. Mhm. te loolu dañ ko war a jàngal ndaw yi. Mhm. ndaw yi jànguñu. seen jàng sax dafa mokkul dama si ay ñoo xam ne dañu doctorat. Mhm. bu nu bindee wala bu nu waxee nga ne ban professeur nga leen jàngal. mooy benn ñaareel ba ja jaruñ leen ci ay jikko yoo xam ne lañuy war a yore réew. ak naka la ñu war a respecter état. troisièmement wut pouvoir tax na ba lu jël nga bogo bogo dugal. mais c'est pas trop tard. c'est pas trop tard pour bien am un accord maanaam juboo ci réconciliation uh-huh. ba kenn ku nekk du ne ah man su ma defee lii sama base day wàññeeku si tout le monde la même chose mm-hmm. il y aura l'équilibre mm. te jàmm Sénégal mun na am ñu cultiver maintenant pour les jeunes loolu moo tax Amadou euh, Moustapha Ba est un exemple boo xam ne dañ ko war a yëkkati mm-hmm. xale yi xam ne du wax ju bari mooy tax nga am cër ëllëg mm-hmm. du jubadi mooy tax nga am ëllëg mhm. cër mhm. du xamadi mooy tax nga am cër ëllëg cër mën nga ko am succès ak dund mhm. mooy nga dem ba yàlla dimbalal bañ fal la ministre waaye cër bi gën mooy bi sax bi nga xam ne sa njaboot nga ko bàyyee xale yi tey Moustapha Ba bàyyee na leen loo xam ne buñ ci royee mun nañ yegg ba nekk ministre des finances imagine depuis trent deux ans nga nekk ci benn poste nekk fa agent nekk fa directeur nekk fa directeur général nekk fa ministre ba génn fa te benn coow mosulaa topp loolu dafa am éducation de base boo xam ne ci famille bi lay jógee d'abord parce que nitu du juddu la c'est important nit ñi delloo xel famille yi éduquer seen doom yi deuxièmement dafa jaar ci école bu ñuy jàngee jaar ci école bu ñuy yoree réew waaye yow jaaroo ci école bu ñu yoree réew sa kër yaruñu la. Mhm. ñu bëgg laa jox suñu réew. Mhm. lu xew rek ñoo ko teg si bopp. dëgg la maanaam lu lu yàgg dëgg la dëgg rek muy mujj. absolument généralement naa dégg ñenn ñu baal ma waxin wi xale yi wax ne ay fen du bejaaw. non du sax waxa ko dëgg la ah. fen moom ah. du saaga nit ñi mm. ñoo ko bëgg def saaga waaye wax lu mm. dul dëgg moom fen la tudd mm-hmm. Mm-hmm. te fen ak dëgg baaru glace la ak findi feer mm-hmm. bu naaj wi tàngee baaru glace bi dina sey ba dootoo ko gis. Mhm. waaye fi mu ferga fa nga ko fekkoon fa nga koy bàyyi. dëgg la te loolu mooy sax. mooy sax autant nga accepter nangu dëgg tey lu mu wax wax nga nangu ni lii mooy dëgg. Mm. fen wi nga fexe éviter ko moo tax dégg na yenn candidat yi. Mm. te loolu dama ci ànd ak ñoom. ñu criminaliser fen. ku mel ni Abdou Karim Sall. nee na bu demee assemblée. <laughs> mais parce que dafa commencé yàq réew mi. <laughs> fenal doomu aadama. moo gën a yées ci fen yi. fen ngir am dara. mais loolu yàgg na politique de. de politique gi. Euh, yàlla baal quoi. c'est-à-dire réseaux sociaux yi kii rek mais politique. c'est-à-dire nit ñi ñeme yàlla gi ci definu politique ñenn ñi. xam nga ñeme yàlla ak fen dafa wute. ñeme yàlla mooy ngay fexe di wax loo xam ne wóor na ne lii gëmoo ko yow sa bopp. Mhm. pour que ñi la war a topp topp la mooy li ma la doon wax léegi. naxante ba jàll. fen mooy nga sos. Mhm. wax loo xam ne amul. mooy fen. fen mooy nga dëkkal doomu aadama fu mu dëkkul. ci fen la bokk. Mhm. fen mooy nga soxla dara mu jaral la nga wax nit ki loo xam ne wóor na lii musta am. loolu dañ ko war a dindi ci suñu doxalin ci wàllu politique. Mhm. su fekkee am na ñu koy doxal. baaxul mhm. nañ ci wut saafara. ndax suñ ci wutul saafara danañ dem be kenn du xamati kan mooy kan danañ dem ba politicien. déjà commencé nañ leen bañ. malheureusement. léegi nag imagine buñ ci bëgg a boole beneen jikko buñ salte loolu. askan wi dañ dem ba bu ñu leen kaay leen wote kenn du génn. mais loolu tam baaxul te bu wote amul xam nga lu muy ah, ah, loolu baaxul ci réew mi loolu bu amul. Mm-hmm. nit ñi amuñ expression démocratique pour mm-hmm. mën a folli. Mm-hmm. dañuy jël ay yat. yàlla yàlla musal te loolu ñu <laughs> yàlla musal yàlla musal président Babacar Gaye RFM mu ngi lay gërëm bu baax di la sant. maa ngi lay fay bu baax eh, ak Assane sama diggante ak yow toujours jàkkaarloo bi daf may neex lool. yow ku baax nga eh, bi nga ko <laughs> tuddee. Mhm. parce que li ciy génn mooy xam-xam da ma laaj. Mhm. danga ma soññi. Mhm. da nga ma bousculer. pour que li ne ci man ma wax ko. yàlla xam na ne. li sama xol. di yëg rek laa la wax. ndax loolu mooy. loolu mooy nit mooy nit. nit day entier. absolument ah, boo juumee boo juumee ah, baalu boo juumee baalu. <laughs> jërëjëf président Babacar Gueye la ñu àndaloon mbokk yi seen émission yoon wi ak RFM moom moo nekkoon ni jamono di ma ko waxee euh, njiital groupe euh, parlementaire liberal ay jamono it mu nekkoon directeur de cabinet politique bu président Abdoulaye Wade jamonoy yi jiite euh, mouvement Manko Mucc bokk ci kilifa yi jàppale coalition takk wàllu Sénégal ngir législative 17 novembre 2024 Alioune Ba moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ba alxamis